برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنصرة تأتي لنا بظفر آه، نيجي بون تيران فلا دبل دبل ها هلا نك اللي من الدبار بالحال بون ديسي لانك بور لك فاكي غاني لك فخلال ما ب ب nga commencé nag xam tawxid jàngal la ko nag toppatoo rafetale say ibaadaat bakkan bi nga fexe ba du la mun a nax ndax daf bëri ay ayib te nga am nag yar ndax yar mu ne mooy force d'entrée pour képp ku sóob mu ne wal taku xaashian axaa tawaaduci فلست بالوضع بالتخاضع جيكو جيغا خامني موم جيكو الاسلام جو تشوسان ولا تسوفيان كي بايكو خير موي بي موي توزني ولتكون نغا نيك دوما خاشعا لاجي ا وف بوديتي سجيك ديغنتيك نيت ني xaasiyaan di yëg ak màggal ci sa xol bu dee sa dégganteeg yàlla la moo tax law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytahu xaasiyaan mutasaddian min xashatillah xel ne nit dafa di feeñ bu dëgër rek ndax alquran rëy na rëy goo xam ne su ma fi ne woon ñukk nit ñi wàcce ko ci montagne montagne yi da gis ñu ne xob ni ko ragal ku lu lay romb wala looy romb dafay mujj sax éclaté mu ne nag kon yow na nga nekk xaashan amal xushuu am nañu koy firee ragal yàlla génn ci waaye nag moom moom melo la ci apparence ak ci biir xol na nga ëmbal tey axaa tawaaduin di borom ak suuféer sa bopp am am humilité te kat du la wàññi dara falasta déet yow bil wadii ngay aji suufe ku ñàkk fayda fi taxaadui ci noonu ngay woyofal sa bopp woyofal sa bopp taxul nga woyof waaw parce que euh, xam nga euh, euh, ci arab tawaaduu ak ñaari baat la yoo xam ne bëri nañ baat yuñ xaraf yuñ dërële waaye bokkul tawaaduu moom jikko la waa moom dana am sax waaye day seet ka ko jox poids mu woyofal boppam ci diine waaw su fekkee ne ci àddina la mu seet la ko jox poids mu woyofal boppam ca ña tax ñu jox ko poids te mu ne wal taku xaashian axaa tawaadui fa bil wadii tax wadio mooy nit ku nit ku ñàkk solo mu ne am humilité woyofal sa bopp taxul nga ñàkk solo waaw xadia mooy euh, ba tey tawaada nit sax bu sàggeere boppam noonu ci kanam kilifa comme saaba yi dañ daan toog ñoom parce que ñoom ak ab yonent lañ waaw ndiroowul ak ñeneen ñi saaba yi ku am observation dafa ñëw ba dem di nettali ne leen ña ma gis duñ jébbale mukk yonentu kenn di egg ci moom bu ngay boo ngeen noonu ndax buñ toogee lu mu wax ñëpp yëkk ñëpp yàkkamti def ko te buy wax ñëpp dañ koy déglu mel ni seen bopp yi ay picc ci dal tañ ragal mu naaw waaw euh, te terewul nag ña ngi ni jar nag ñoo fi ñoo fi gën a mun a observer saaba yi lu lu yëngatu rek seetlu nañ ko parce que nit lu ko itteel du ko sàggane bàyyi man mos jox ab dërs dama dama dañu dem Paris suñ Paris ju yàggu jooju ba ñibbisee ma jaar fa am na sax suma kurus bu ma fàtte woon ca salon Abdou Malik ba nekk fii la dund ci fëtëy ma dem fa gis ko Abdou Malik di ma laaj ay ay point ci yi ko bàyyi daan waxtaanal am ci sax yoo xam ne man dama amaat <laughs> problème pour kii ko ma yow ma wax ko bàyyi man si doon les contrats xawul mbax mu daa ama loolu rek kay soxlaa moom loolu rek kay soxlaa Abdou Malik xam ne moom jaarul fi nga jaar jàngul li nga jàng nga dem muy fàttaliku ba bëgg laa sox kii ne mu ne parce que loolu rek soxla maanaam wàññi leen yenn soxla yi te mu moom du la neexal ambassadeur ngi nii di la bëgg kii loolu jar naa doy ولتكو خاشعا اخا تواضعي فلست بالوضيع في التخاضع وقت قال دكو سوفر سبب رك تموي دك رك دوان دوكو سوفي تي تي بوا دكو ام بوا صح موي سوفي موي سوفي بوا موني مثال مي رك موي نوكو تي اي ماسك موني فالعلم قم قم اك نيم باخي والغناء كوم مدغن وخصب اك ناتانغا قد اتى ديكنا سين بادي وحركات الرفع لا فالعلم والغنى وحركات الخفض ماسك يسوف رصد سخن فيه النجيم عي نغوخ غي نغوخ خي نغوخ ماسك ادلا دولا فا واير تي سوف لا تي سوف لا نه mu ne temps xam-xam masque gi ci suuf taxul mu suufee rinaa koom masque gi suuf taxul mu taxul mu suufee ndax yàlla sax ci melo mi rinaa ci la bokk xis bu noonu mu ne tokat par contre wal jaxlu réer na mu bone wala maa ne nañ fi nga xam ne réer a bon rek lu ne réer soo ko ne réer mu naqari waaw lu nit réer réer boo ko waxee xam bu neex ko ci ngay xamee ni xam baaxee ak ni réer boole mu ne wal jeexlu réer wal faqru ak ñàkk wa jët bun ak safaanu ni mooy bekkoor xat dikk na baat yooyu ñoom itam waxarakaatu rafi te maaskay yu nekk ca kaw lu rafa gi nga xam ci nahwu de mas lonk déedéet dafa ne ki ñetti mas ga yeb ci commencement baat bi ci suuf lañ ko maas muy ilmu xinaa khisbu ki na ja fa ja mas ya ci ko wa harakatu fi na sata kenn bëggul reer kenn bëggul ñak kenn bëggul décor mune fadi yi ma tudd ab ida aqalta ndem xelu nga ko seetlu ko raiqatun yu yéeme la fal tëddri na jéem a xam yow maa ulhimta la yakkee la yakke yankee faleet la ko maanaam liñ la yankii wal liñ la inspiré jéem koo xam cest à nga xam ne mbir yi du toujours rek dafay mel ni mel ci biti du ne toujours yépp day nekk ci biir parce que bu yépp nekkoon ci biir kon melow zaahiru ci yàlla fu muy liggéey bu yépp nekkoon ci biti melow baatinu fu muy liggéey moo tax nag nga bàyyi xel ne léegi-léeg nga gis ku ne fàng ca ko fekk amul solo gis nañ ko ci ñaari yëf yonteel Muhammad toog na ak ñenn ci saaba yi am ko ko romb benn waay moom day jàngale comme ni baay jàngale ay misaal nga jàpp ko misaal boo ko xasee jàpp rek dootu rëcc mun na saaba yi lu ngeen xalaat ci waa ji kooku maanaam kii romb dem ni xëy na nuyoo na dem xëy na ñu ne ko kii kay moom mooy ki nga xam ne fu mu nuyoo ñu fay ko entre ko fu mu labat ñu may ko fu mu kii waajaa ngi nii mu ne pat ba mu yàgg nag ne sa benn waay yàlla jaar fa rek ba yàlla mu ne kii nag ñu ne kii moom mooy safaanu kële rek kii kenn du ko faale fu mu labat kay ngoro ñu dàq ko kii kay amul solo mu ne maa ngi leen di waatal ci yàlla ne suñ feesaloon suuf ci kem waajee buñ leen buñ leen pesé ak waa ji ngeen di wax kii moo ëpp poids fa yàlla benn benn bi Abdoulaye Mbarak ki nga xam ne moo ko Cheikh Abdou Aziz Dabakh bu Maroc borom zahabul iblis nga xam ne moom jàngut yàlla fat fa rek euh, sëriñ bi ko na yaa daf na ko bés nañ doxantuwaay ci dëkk bi mel ni ko ne nañ dem wetu Sandaga ñu dem taxaw nii ci benn artère taxaw rek ba mu yàgg am na ku yelwaan fee benn waa jógee fa jàngat jàngat ba egsi ci kii yelwaan daal di commencé seet cartable maam nga fa gam di lamb di seet di seet di seet di seet mu bi ne ko xam nga waa lu muy gëstu lu muy wut fi mu mu gisagul lan la mu ne ko déedéet mu ne ko poids bi muy peese fa yàlla lay seet te gisagu maintenant nañ seetlu waa ji daal ba gis benn koppar benn daaneeku te vingt cinq centimes yooyu doyoon mu jox ko góor yooyu mu ne ko gisal la mu am am daraja di jaaga jaaga li kat daane xir lay peese fa yàlla lan tanaalul birra xata tunfiqu mimma tuhibbun birru kii lu baax rek yàlla du ngeen ko am mukk lan mukk fekk li ngeen di joxe bokk ci li ngeen bugg loo xam ne yow mun nga ko consommer booy joxe joxeel loo xam ne am nga ca soxla booy joxe joxe ca waaye yàpp ma ñamu mbaam kenn du ko sarxe donc yow soxlaatoo ko nga di ko jox yàlla nag waaw wane moo tax euh, waaw ndem birru nit mënta am lu mooy boo joxee ci li nga bëgg une partie de li nga bëgg mu ne baaru nag soo ko bëggee nooy def baaru xam nga mooy yàlla bërru mooy mbaax ne mu ne ndem bër doo ko am birru birru doo ko am doo am birru ci baa gi ñu mas ci suuf lu mooy ci la ngay joxe na bokk bokk ci li nga soxla ba tey boobu mi mën nga ko sol ba tey nga joxe ko waaye dana noonu mu ne ku bëgg a baaru nag looy def mu ne kon xanaa sa bopp ngay joxe waaw فذي إشارة إذا عقلت رائقة فلتدري ما ألهمت muy misaal ba tey pour nga jàpp ko pour yëkkati ku lu ngand ngand lu taxut a ngand suufi suufi lu taxut a daanu laa yaskunu mu ne du dëkk du tag say lu yoon yoonam ndox alal ajbaali wala al alal alal kin ajiyaali yi noonu de alal ajbaali wala alal jibaali boo ci wax baax na ci kaw doj wi nee na yoon ne ndox day wàcc rek du dëkk ci kaw wala ala ashjaar yi du caagee rek itam ci kaw garab yi taw day romb garab wàcc ci suuf garab a nekk ci kaw mais taw doo ko fa romb ñëw ci suuf te suuf pourtant moom moo wàcc fii tax maa liñ ci dotteeku mooy sotteeku ndox bu am doole kon nag loolu mooy am na koo xam ne euh, dafa moom du sax lépp ci dëkk bi la nekk yal na yàlla guddal fanam fonction fonction ministérielle euh, kii na ko te itam am na diine jàng na tuddi arab daf ma bëggoon ma boole ko taalibaay koo xam ne daf dafay sumb ci loxo ah ma yebal ko ci diw mu dem fa dem fa dem dem ma taseeg moom ma ne ko ah nu ngeen def mu ne ah non foofu foofu ah, wax dëgg yàlla loolu taxoon ma yebal la bi olof taalibu mooy kuy sàkku dara un postulat quelqu'un qui cherche moo tax mu yóbbu la fa de moom dafa daa yem ak ñëpp loolu nag moo ko moo jàngut lañ ne nangulal kenn nag te doo ci jublu ñépp nangul la bu yàggee ñëpp nangul la hmm. ولا على الأشجار في تحمال لا يسكن السيل على الأجبال من يجمع الجبل على الجبال يلجم أي مرضان لا تتكبر يا أخي بتي يب نيت كيلي دفر جيكوم باسكو كوميرس نيت بو غنا جاب جات لا لا ترد بول غرم موك بول كونتان موك بول يم موك نفسك الشباب bop dal bu mu la jey mu ba ngay foog ne yaay waja même boo day waja wala tarjubul yakar muk wala takhshabur ragal Muk, siwal mawla kulul allah mi kilifa ñëpp di borom ñëpp la laa tarju rajaaw bi nga war ci borom bi nga xam mo am mo man mo sañ doo ko placé ci ki nga mi def mais ci martaba bindéef ba tax ñu bari ñu comment ñi génnoon fi jàng bi tuuti gis ci sëriñ si am fi kii ba tukki ci ab dëkk daje fa ku naan kenn du yaakaaruma yàlla kenn kii lu ma yàlla am ñu foog ne loolu maanaam xolli na mboolem valeur yi nit ñi am ci fañ jógee woon euh, problème yu bëri lañ am li ci bëri gis naa gannaaw gi ñu demaat ci ñi nekk cheikhu cheikhu xaadir euh, cheikhu xaadir yi ñu nekk ci muqaddam tijaan yi parce que dañu daw ba sonn gisuñ dara ko doo dégg rek la ak tëj doo boo yàlla rek ku yaakaar yaakaar yàlla d'accord waaye nag koo yaakaar yaakaar yàlla wala loo yaakaar na yàlla tax bu ragal noonu terewul su sufiyanke yi si ne boo ne bul ragal ku mooy yàlla pourtant terewul ci may daanu tarbiye nit ki nanañ ko ragalal yàlla ragalal képp ko ragal yàlla mooy tunu ragalal képp ko ragalul yàlla parce que est capable tout kon ragal yi bokkuñ waaw siwaaxu kudul yàlla ahmilan neenal ko ci bunta yaakaar ak bunta ragal لا تتكبر بول ريلو موك يا اخي يا مبوك سو بوي جانغ تاكسي سخيل دا فاي داج الامام النووي تا باينا لا يا اخي بعد لو تكي بوكو جانغي ريك دي سادريس ا تو يا اخي وي سا مام نانا يا اخي وي سا باي نانا يا اخي باسكو اخوتو جي مو اخوتو الاسلام صاحبي امنا نيو خامني dañu teel a xam yooyu par exemple Abu Darda du nett li mukk lu may def naan suma suma xalili yonent lay wax mon ami suma xarit ba wax na ma ne toujours xalili am na ñuy wax naan xabibi waaw laa tatakabar yaa axi la imam Nawawi moom dafa ne yàlla li li tax ma dollee am dignité yëg suma bopp ba nga xam daanaka biddiw yi foog naa ne damay jaar ci seen kaw mooy bi nga ne yaa ibaadi rek bay ka bay man maa ngi ci biir bi ngay oo adré na yéen suma jaam rek nu ma mën mel rek maa ngi ci ñooñu ngay waxal loolu laa ci sëroo te itam bi ngay séddale yonent yëpp ak ñuy topp man yonent nga ma fare loolu daf lay daf lay convoqué dafa lay provoqué pour nga fàttali ko xéwal yi moom la ñuy wax shuhudul minnati juhudul millati la nga am nga xam ko la tatakabar yaa axi laa taxsuda bul iñaan mukk nag wala turaa te bul njistal mukk nag bal bayit uqsud jublul ilaa ka sa borom ci lépp looy def riyaawoo ko moom parce que riyaaw mooy wane dara lu bokkut yoo xam ne jartoona wane ñoo xam ne fi mu leen di diggalee fitna la mooy bu ñu neexee baat jàng alxuraan bu ñu munee jàng alxuraan bu ñu jiitee mbooloo wala ay nit jàng rëb daal jub mu jàng jàng rek wala blam bu bu ñu lay yéegee dara nga def bu baax su fa nekkul nga baat la ko mu loolu la ñu bañ boo defee lu baax fekkeewul nga nettali ko ngir nit gis la gis sa sa sa dayoo d'accord ci bépp li nelawuma bi laa tëdd bari akhilat suda sudaa beneen boo bëggee xam asadu d'abord jël ñu koy définir ndax am lu niroo du mané ne asadu moom ko suuf la mooy taman nii zawali neexmati nekk keneen ku dul yow am xew ni ne muñ ko me ko ko amul lolu loolu mooy en ñaan nag niroo naag ribatu mo ñee mo ne nit ko am lu bax yéene ko mais bëgg nga am lu mel noonu mbaa lu ko gën ten loolu aaj loolu moo tax xel ne wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun lu baax xëccoo ay maanaam du xëccoo maanaam ngeen compétir mu bëgg nga bëgg nga voilà waaye nag la bu jaari waxoon ñoo ko euh, waa kër Muhammad mii dañ fee nekkoon lu ñu def ñu dem def ko ñu toog toog ne yónnent bu loolu loolu fu ñu koy jëlee duñ ko nangu mukk gaa yi duñ ko nangu mukk du argument bu fekkee war nga ko nangu da xasad mu ne xasad baaxul yonent bi ne alxasuudu laa yasuud doo fekk mukk mukk ku iñaan dëgg mu nekk sang mukk parce que ku buggul keneen am lu baax mënoo nekk sang ndax sang foog mu utal nit ñi lu baax boo ko amul yéene leen ko waaye daan defe ni di wax ne jullit pour gàttal mooy koo xam ne koo mun a jëriñ jëriñ ko koo munti jëriñ bu ko lor yomb na lool ku ko yàlla dimbali eh. حسد بونه داي علماء داي لي داي دي حسد موم دا فا ملني كو ساني او خير موم اولي مو دم وني كو بن سبن بن دا ساني مو ني كو بن بي جيرس بس لو تي داف رك سيو لي جيرس امنا الحكمه لا حكمه قوم حديث موم موي تي غنا ايلوكان من لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله ونسكيت iñaan ak a maandu waaye moom ci ki iñaan la commencé ci la commencé rek ko <laughs> xam nga arab dañu am li ñuy wax feddali ŋàññi ci ci style bu niru tagg wala feddali tagg ci style bu niru ŋàññ kii di amul sikk lu may loo ko laaj mu jox la ko dafa mel ni kuy xas waaye day tagg kii itam mu ne ki ñaan a maandu moom ki iñaan la njëkk a gaañ day doolee xas ki ñaan <laughs> mhm. يتكبر يا أخي لا تحصدا ولا ترائي بل إلها حصدا والكبر من الريل جركم ndax imma bi ulumin benn muy ngir xam-xam yoo am aw nasabin i ka askan way askano diwa ma jur diwa ma jur aw fi'li ta aw zumarin i ka ay mbooloo yoo xam ne boo leen digalee ñu def aw fi'li taatin wala jëf ak topp yàlla nacheb wala alal ju bëri mooy faral di indi kii mu ne nag loolu benn jaru ko parce que xam-xam bu dee xam-xam mu xarala euh, au lieu nga réylu ca appliqué ko nit ñi jëriñu ci dinañ xam-xamu diine jëfandikoo ko parfait bi xëy ñëpp ñëw ah. waaye bu dul loolu xam-xam alquran daf ko tudd fu raglu أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله دو جيس كي دم دم با سوبي باسيون بوبم با نيهو با كانا موي موي يالا سي تادير لوموي نيك يالا يالا بو ديغي جام دا كوي ديف لوكو با نيهم ديغي لولي مرال مو مير نيانال مو نيان خيتو مو خيت ساتيو مو ساتيو mu ne kooku nag yàlla daf koy réer ci biir xam-xam réer ci biir xam-xam nag moo yées imaam Xasan nett na ma ko bu yàgg bu yàgg ca saasa mais nett teg nañ ko sax gannaaw soxot yi boobu naan ko Cheikh Ibrahim dégg day moom moom amul morom ku am xam-xam la mais benn li mu def yëpp dara baaxu ci ngir dafa dafa dafa fonk yonent ba mu ëpp ah ñoo bokk baay bàyyi na ko alhamdulilah daal bokk yonent mën naa ëpp yonent ne kenn ci yéen du gëm-gëm guñ mën a limoo lu mooy dafay dem ba ma gënal ko boppam ak ndeyam ak baayam ak àddina bi yëpp ci bakkanam bi ci biir naka ngay bëggee eh, nit ba mu moo tax eh, bu dee askan askan ku ko xeeb rek xeeb nga une vérité une réalité bu baax ndax askan askan bu baax mooy dara lu baax rek ci yu baax yi la bokk boo boo boo boo boo contesté askan bu baax mi ngi mel ni contesté nga euh, jikko ju baax contesté nga tari bu baax lu baax rek baax na mais nag liñ li bon mooy askan woo xam ne dafay tax waa ji am xijaab tax yonente ne woon képp ku sa askan daagu képp ko sa jëf daagu sa euh, euh, sa sa askan du mun a wax képp ku sa jëf daagu sa askan mun fexe ba nga jot nit ñi waaye nag bañ ñu jaawale mel ni askan wu baax baaxul am mais dafa ne askan wu baax lu mu baax baax mënul passé li fondation li fondement di jëriñ ci tabax wala boo amee fondement bu dëgër loolu la mën soo bëggee nag néeg wala ay néeg foog nga tabax teg ca ne bu amee askan wu baax itam yow am nga tàmbali nga tàmbali boo amee tàmbali nag euh, yow liggéeyal yokku ca hmm. daf ci sori woon téerim bi ñuy wax euh, euh, tabsirtu anaam fi ànd al-ilma huwa al-imam te ju ñëw nañ ko keroog waaye daf ci indi xissa benn waay Euh, benn shérif bu dëkkoon Xarasaan Xarasaan fi ne ma ngi ci côté Iran boobu euh, bon euh, moom yàlla dafa sàgganoon daal sàgganoon léeg-léegi sax mu daan naan benn mawlaa nag mawlaa mooy ku ñu affranchi ku nekkoon jaamu nit ba mu libéré la ku ñuul ndaxte bàyyi mu ne patron bi dafa dem ba ñemeetu koo liggéeyloo tellement dafa jiw dafa jege yàlla kooku nag nit ñi topp ko di jëriñu ci moom buy dem ñu ànd ak moom mu romb fenn rek su fekk waajaa ngi xam naa commencé mandi rek mu fexe ba yegg ci moom ñu koy puus ak weq ak yooyu ba mu tee ci googu fas wi rek xas ko xas askana yaa aswad alxawaafiri wa shawaafir yaa kaafiru ibna kaafir adabdu rasulillah wa anta bidul kufaar tuaanu wa uhaanu wa tukramu wasdu waa ji gaa yi bëgg koo bàcc barke mooy ne dégg leen ba rek bàyyi leen ma ku ñuul ki ñëpp topp donc borom askan wi moomoon mu ne ko mu ne ko wax nga dëgg suma maam yi yéefar la ñu woon donc cosaan waaye nag dama bàyyi seen yoon sa maam yi dem ba ci yonent bi yow nga bàyyi seen yoon ñëw ci suma yoonu maam ma ñëw ci yoonu maam nit ñi jaawale gis ma ci yoonu maam ñu foog ne may yow ñu traité ma ni nga doon séentu ñu gis la ci sama yoonu maam ñu traité li nga ma yéene woon ñuul wax nga dëgg waaye nag suma xol bi am solo dama ko weexal woon ci bëgg yàlla ak sopp ko ba mu feeñ ci suma melu wu ñuul nit ñi sopp ma yow nag weex nga waaye su xol bi nga ñuulal ci fàtte yàlla ak sàgganee ko ba mu feeñ sa der bi mel ni weexoo nit ñi bañ na léegi ñi la doon pamax yépp ba nga egg si man baal naa leen parce que fi mu ne dangaa man di waroon lañ laaj caw yoon li ma wax yépp itam man baal naa la ko ndaxte li nga sàggan sàggan yónnate ngay askan rek gaa ñu ko mi ci téere boobu askan baax na mais nag askan na doon fondement nga tabax ci aw sous-marine ci kay mbooloo ah parce que mbooloo bu fekkee ne dañu lay jëriñ war nga di leen jëriñ kuy yar ni ci diine doo ko ko doo ko soofa waaye nag mbooloo bu demee ba nekk ci nekk nekk show ah plante mbooloo ku ëpp mbooloo yaa ëpp maqama fa yàlla musul nekk noonu parce que yoonu Cheikh Mohamad bari na mbooloo mais quand même Iblis boobu mbool xajatul wadaa cent mille et quelques ñoo lëbbay ko ànd ak moom ndax dañ koo yëgle nit ñi di ko fuglu ñi ñëw fekk si ko Medina ñii xaar ko ci yoon wi ñuy dem rek ba ñuy egg Màkka mun nañ téeméer junne ak nangam jaabiro ko nat waaye nag xam nga léeg nga gis benn match boo xam ne masha Allah mbooloo ma kéemtaan lay doon doonu kon nag mbooloo am na solo waaye mbooloo mu mbooloo moo kii mbooloo moo am njëriñ defar la wala nga defar leen jëriñ la wala nga jëriñ leen moo tax alquran di moytandikuloo loolu ne al axillaau yawma izin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin bés penc bu yàlla pangee jaam yi xarit yépp ku seen sa xarit rek ne xët ak loo baax baax bàyyi ne parce que loo am ci lu baax danga ko soxla keroog bëggoo gis nit léegi mu réclamer la dara luy wàññi la nga am ak si néew bàyyi ne ak mën nga wax sax ne xarit daanaka ruuxu xarit mooy koo xam ne mën nga yaakaar ci moom njëriñ mën na la dara wala mu dindil la euh, loo loo lu loo luy lor su demee nag ba mënta dindi lor mën ta indi njëriñ xarit ga jeex na mu ne moo tax bés ba ci xarit yu bari dañu dem yàlla ne illal muttaqin lu mooy nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jege woon yàlla ragal ko ñu dañuy wonte di dox wonte fekk ba ñuy nekk ci jannatul xul yoon ci yàlla boole aw zumarin aw fi'li taatin xam nga itam ba tey réylu jaamu yàlla jarul réylu ndax boo réyloo rek moom yàq ñoo jarte sax firi moom ku ne xam na yàlla ku gis seen ruuxu salaat yi rek li gën a tedd ci nit muy kanam gi balaa sotti rek mu ne ko te ba di xew fàttali ko leen ne sajjaada amutoon daanaka dañuy so dañuy ci suuf si waaw boo amul ndox nga jàpp faf ci suuf si par entre parenthèse ndigal mooy diine moo tax tiim mën na remplacer jàpp

waaye nag boo ko téyee mënatoo ko tiitaroo naal yu nee na istaxni am man chita tekun nadirahu ku la neex rek lu mu réeréy rek doy lu walis ko rek mu nekk sa kem léegi koo soxlaalu rek sa sa morom la loolu tax bàyyi du sama morom tey laa ko gën a soxla tey bi lay tey la ko gën a soxla dëgg rek mu ne maasiyatun tuurisu zullan xayrun mooy mooy xabari mubtada bi wa taatun tuurisu kibran charrun kooku ibnu ataillahi bi dapt la la indi foofu mu ne maasiyatun ak mooy yàlla tuurisu goo xam ne dana jural waaje mooy yàlla nattu ko zullan ak toroxte xeeb boppam gaaw dellu xayrun moo xayrun aw yiw la waaye wa taatun topp yàlla goo xam ne tuurisu dana jural waaja kibran ak réylu sharrun ay la loolu nag boo waree gëm da nga koy gis xam ne ruq yoo xam boo fa demee boo tari tawrat ak injil ak zabur ak furqaan soo manqué rek benn formule ci nañ koy waxee ñoom rek jàpp nañ ne xamoo tawxiid doon lu yéeme la yéeme yéeme am na yoo xam ne dañ gëm nañu ne Afrique bi fi lislaam daal laata laata egg yàqu na ba pare moo tax xamuñ lislaam mais bàyyi weddi na ko te yëgut wax ja waaye dafa dugg nee na dama dugg xaram 1937 dama dugg jàkk masjidul makka sur xaram romb kuy jàngale ba léegi am na ay chaire ñu jàngale ko aj gi léegi day wàññeeku ndax nit ñi dañuy bëri mu ne ma tolloog moom juste fekk muy firi su mastawa alal arshi firi ko loo xam du noonu ndax daf ko nirale te yàlla laajum nirale mu ne kam ni ma toogee yàlla toog ci gàngu naayam comme ni ma toogee suma fëtëy bii fëtëy bii mu ne bàyyi mu ne maa ngi doon dem tudd ma ñee ko ne ko du noonu de d'abord il faut nga saluer honnêteté ak njàmbaar googu nit ku ñuul 1937 d'un pays dem foofu ci màkk nga xam ñu bëgg bu fi eggee complexe nga gis lu dul dëkk nga corrigé ko waaye ne du su dara yow loo xam ci loolu yow loo foog mënu ko dégg waxuma li ma foog li ma li ma wóor mooy ni nga eh, maanaam ni nga toogee ci sa fauteuil bi yàlla yàlla mënoo ko ndëral ak yàlla yow sa fauteuil bi dafa laa gën a yaa nga xacc bu gën laa dëgër attan la yëpp dafa jomb ci yàlla nga te kenn du wax kem sama nangam booy wax ak yàlla xanaa fàtte nga laysa kamislihi shay'un bi yàlla tawxid la fa ba ci bëgg a tontu bàyyi na ko buñ ko guddal da ngay jàngale bu fekkee ne waxtu tuddee rek ne nangam histoire al arshi wax na baytulaay bi ni wax na naaqatallahi ci taarix wa suqyaaha waji doori gis na yi fi sérieux na mu ne ko léegi nañ dem fexe ba dugg ci kaaba bi comme baytulaay la xanaa dañ ko fekk mu toog di recevoir nit ñi ñu laaj taarix maanaam histoire ndax naaxatulaay daan daan na ko war mën ko boo tax naaqatullaay ak baytullaay ak abdullaay ak arsullaay yëpp dañ koy laafal ndax moo ko moom lu mu ci jublu teral loola teddee ci bu dul loolu in kullu man fi samawaati wal ard illa ati rahmani abdan rek continue wër na ma ni waaye jëriñu men du ko wax xam nga benn Sadou Yacine di nettali loolu maa ko dund moo tax Sadou Yacine dafa laaj bàyyi laaj boo xam ne mel ni booba rabita day door a commencé commission boo xam ne gis nga bàyyi muy nekk président de commission générale buy préparer ab congrès wala mosoo ko mais nit ki bu aptee loo ko dugal rek waaye di joxe parool di commenter di kii ba rapporteur bi xam na nu mu tudd dama bañ a guddal ba rapporteur bi ne eh, eh, kon nag nangam nangam nangam maanaam durant les jours nag mu ne tiilata ayaami na dooti ba dab tiilata rek waa ji waa ji comme ñëpp ne nañ moo fi dàq arab mu ne ko effacer baat boobu du arab tiilata du arab bàyyi mi président commission bi ah, calme ndeysaan ne ko bàyyi ko ci bukk effacé arab la léegi ah. nag confrontation loolu loolu fuñ koy saxale bàyyi na ko ci xaamuus moom mooy mooy mooy càppaacoli dictionnaire langue arabe Sadio mi ci waxtu tudde rek ne nangam histoire la archi wax na baytulaay bi واحنا ناقص الله في تاريخ وسقياها وادي دوري جسنا في سيريا نمبنا كل لغي نجم فخي بردو بيتي كابا كم بيت الله إلا خلا دانكو فخي متوق دي رسوان نجي نيس لا تاريخ مانا بيستوار ندخ ناقص الله دان دان نكوار نرك بوات ناقص الله بيت الله عبد الله عرش الله دانكو إلا فالنخ موكم موم لم تجيبو ترال لولا تدي bu dul loolu in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abdan rek continue wër na ma ni waa jëriñu men du <laughs> xam nga benn Saadu Yaasin di nettali loolu maa ko dund moo tax Saadu Yaasin dafa laaj bàyyi laaj boo xam ne mel ni booba rabita day door a commencé commission boo xam ne gis nga bàyyi muy nekk président de commission générale buy préparer ab congrès wala mosoo ko gis

calme ndeysaan ne ko bàyyi ko ci bukkee passé arabe la léegi ah. nag confrontation jot na ki ne ko loolu loolu fuñ koy saxalee bàyyi na ko ci xaamuus xam nga moom mooy mooy mooy càppaacoli dictionnaire langue arabe Sadio Yacine ne ko ah, loolu mi ci xaamuus bàyyi na ko yow maa lay wax ne mi ji xamus nga di ma ko laaj <laughs> dafa dafa tiit lu ko maa la wax ne boo demee ci xamus danga ci fekk tawaala guñ maas ca kaw tuwaala guñ maas lonk tiwaala suuf tiilata yépp mi ngi firi muddata kada durant nangam bon bureau bi euh, secrétaire général adjoint Safwat Saqa Abini waa Dimash boobu ma ma xëy suba fekk fa volume bi def matière boobu ci xamus mu nekk xam naa ndeke dañ ko doon gëstu ne xam nga bu ñu gëstu woon gis ne kiiwul coow li jib ñu ne pat bàyyi ko ma lii yooyu taxul ma di ko wax benn bés nag Saad Yaasin toog ci xaram bi ci wetu fi ñuy noddee bàyyi moom foofu lay jullee ci kaw fi ñu noddee dafay xat waaye daf ko fay yóbbu bàyyi wàcc nag jëm ca Kaaba ga Saad Yaasin ak benn waa Soudan boo xam ne foo ko gis daf naan làmbo lu mel ni lu mel ni daal ku jël ku jël ab darab bu weex làmbo xumb ci biir xam bi Saad Yaasin ne ko gis nga kii di dem ñun ñëpp moo ñu ëpp xam-xam te ku raglu la man de de boobu raglu ko bàyyi ne yow maan wallahi nii day sa laa fu mu ko gis daf koy foofu kon nag euh, jaamu yàlla moom dafa laaj moom mu ne daal taxaaboo alal noonu alal joo xam ne yow amoo am alal te boolewu la jógee <laughs> bu mu rëy du cew mu ko mu ne nag maasiya buy indi suufeel sa bopp sax moo tane ñu bëri ci njuumte lañ jóge baax te lëkk yi waxoon karoon ابن قدامة المقدسي gis bu xóot ya, mu ya ne njuub di nit ku am xam-xam bu fa nekk di ko pérenniser yaa ca des mais fekk yàlla baal na ko bu yàgg nag xam na fa muy jaar te waxtu woo wili pande rek sax mën nako bal mais surtout bu mo soppi bon la lu أولئك يبدل الله سيئاته حسنات معصية من فلست تخلص من الآفات بون لغي بول بول دك بول دك بول دك بول دك les interdictions لغي نك دفل دفل دفل من فلست تخلص من الآفات إلا بشيخ عارف تواتي palasta déet yow taxlusu ngay mucc di débarrassé minal afaati ci gaaf gaaf yi nga xam ñoo yàq roox di yàq bakkan di yàq xol yàq diine mënoo cee mucc yow kenn illa bi cheikhin dana ngeen ànd ak ab sëriñ aarifin bu aji xam boromam tuwaat yi koog da nga dëppoog moom pourquoi tuwaat yi Ibn Affan lay dafa wax ne maanaam te te nga fay ko dafay dafay ah lii kii bi la wala du mooy indi ana essayé rek su gëm gëmee ñu fay dégg mune de mu ne mu murid maanaam taalibe sari eh, bu bu bu ñàkkee teggiin te amul sanction bu mu foog ne mucc ndax mun nañ koo sanctionné du ko yëg xam nga li garaaw na xëy na mun na am sanction ba bokk ci jiw yi yéex sax bon mu ne aafaat yi doo lu ma munoo lu may doo ci mucc lu may nga ànd ak sëriñ bu nekk aarif boo xam ne tuwaat yi da nga dëppoog moom da ngay da ngay dëppoog moom maanaam bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi soo jummee tam ñu ne futuux boo am xaatir boo am wax ko ko waaye nag bul def futux boo am di ko waxtaane mais parce que futux boo am di ko waxtaanee day day day arrêté seen boo tax nga mën a dégg ba bàyyi ne wa yujibu ni bi su ma suma bi même bu demee ba am fatu li ma neex ci moom nga xam ne daf may neex mooy ma gis ko muy noppi rek du bëri wax فإنه نك نبتي جو يعجج دليل تكتر على الإرفان كي خم قم خم برمم ده والحالو سيتياسيون بيك تخبرو مومي وخليم دور فا وخم متوانا عارف دفكور ده مير بيكم كي وقدر فترامين نان بومي بكتي دار فلتمسكن بعصم المشايخ إذن يا اذا اردت ان الى عز الشارع مو باتي ملي وخنا بول داك بول داك ليك مينان دفل دفل دفل انا ليكي سما يكون صلو تخلي ليكي تحلي بك تك بنغا ايغي تي دجلي تخلي واي غا ديباراسي يلو دونتي تحلي موي غا صول ميلو ياغا بوغون با بنغا ايغي تي دجلي فالتمسكن بعصم المشايخ من نك نغا جاب تي كولري ci ci ci ci boumi serigne ci serigne ci tax mu wax serigne ci kat waxtu waxte rek mashayix ki xam nga pluriel la shaykhun arifun la ci djub kon nak al mashayikh al arifina اذا اردت nem nam nga nay la izin am teraanga joo xam ne saamixin ju yëkkatiku la ci buntëb yàlla parce que teraanga ñu bëri ni ñu koy waxee bokk nag ni muy wax moom léen di borom teraanga la mi ngi aju ci waa ji wax conception bi mu am ci teraanga waaye nag izz bi mu wax mooy ba yàlla ne walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin yàlla moo am li ñuy wax izzatu ñun dañu firi ci profané dignité mais mbir mi ëpp na dignité force am ca wóoloom ca dalang ca yu nekk ak ca boo bëggee daal izzu foog nga ànd ak سرين سينغا خامني نيوي العارفون بالله لكن نك واو سرين سينغا ما تي سين بير نك مون خير شيوخ الدهر بالاطلاق امامنا التجاني ذو الاخلاق مون نك خير شيوخ الدهر غرجي سرين مولم جامونو يي بالاطلاق تي جويال امامنا موي سونو التجاني كي كوجوك تيجانا دو احمد ذو الاخلاق كبرم جيكو يكوي barsaxu kulli aarifin muy benn wa us muy ñaar lahum wa yanbuul muy ñett wa huwa shams muy ñeent ma bàkk ko ci ñeenti melo cheikh mi mooy xayru shuyuuxi dëhri mu ne mooy barsax bi dox diggante xadratu nubuwa ak xadratu wilaaya ku tëbb rek ci moom koy tëbboo ku ko xam-xam ko ku ko xamul sa affaire wa usun te mooy mooy fondement bi nga xam ne lu tabaxu foofu lay tabax donc mooy seen mooy seen fondement ku ko yëg ku ko yëg nee na buñ demee bés penc ha munaadi yàlla dina ko digal mu ne eh ki leen daan tëmb ngi nii nag te xamu leen ko boo xoolee Cheikh ngay gis <coughs> moom moo ko wayam buuxul te mooy balluwaay ba yam fa la source yay génnee lu sa ndox bëri bëri xamal ne moom moo la ko yónni woowu te moom shamsun ab jant la shams mënul ñàkk ci fu ñu war a dundee te ku tudd shams rek wax nga ba duru walaay budur parce que lu weer wi physiquement parlant amul leer jant bee koy jox leer shamsu am na ñu muy jox leer moo tax mu ne mooy xayru siyuuxi dahri bil itlaq cheikh yàlla dana koy dana jagle nit mu tëb ko ba danga koy jaawaleeg moom dana délégué pouvoir cheikh mu délégué pouvoir xam naa ndaw si wax laa la nangam benn majjuba ci paas ñëw cheikh ñuy wax xam luñ doon wax xam naa dana xóot alors ñu ne am na benn musiba muy wàcc ci kaw nu bi kenn mënu ko téye ñu ñëw ba ci bunt bi ah mu wax de ndaw si ne ko ah xanaa nga gàcc ma ko rek ma gàddul leen ko Cheikh jox ko ndigal ba muy romb sëy bunt ba rek ne fàtti ci suuf mel ni ñëpp foog ni dee nañ mu jóg fa so rek dem mais benn musiba wàccu délégation de pouvoir la برزق كل عارف وأصولهم وينبوع وهو شمس وخير كل الطرق gën ji mbooleem yoon yi nag tariqa yi bil ijmaa yi ci unanimité ñëpp ca d'accord tariqu mooy yoonam wi aydan loolu itam maa ko wax bilaa nisaañ ci lu dul xëccoo buñ xalam xëccoo dana am moom waaw mais nag du xëccoo bu bu am solo boo ko doon firi ci zaahir tariqa boo dindi jàng alxuraan tuuti bàllu yàlla julli ci yonent bi wéetal yàlla ci kalimat tawxiid boo ko dindi rek dara du fa am na ñu ci yokk nag yeneen waaye moom lii mooy jawhar bi lay baatam ba nag mooy ndigal la jóge ca pays ba waaw man dégg naa xale bu naan ba tudd yàlla lu ci jar ndigal mën na ko tudd yàlla lu ci jar ndigal waaw julli yàlla di jar di jar oote fii mun ngay julli yàlla foo toll soo ñu lay oo nag porte suba tàkkusaan timis julli lu ci jar xaar imaam jóg mënoo jóg ñetti yoon balaa jóg ba ko kooku defoon benn yoon yoon dafa nag yow xanaa ragaloo yàlla soppi sa boppi boppam mbaam julli xam dafa am ordre am de xamu ku koy laaj mais du doon ministère <laughs> hein وخير كل الطرق بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع قال به نك لولقم يقول بكذا موي وقتي اوتنا مي موم لي لا سي تان من نك كو خم لي ليغا موي بولي طريق بي اك بي اك بي دون كو جوخ لا سارتي ويستحيل جمعها باخرى من أخسر الكوتيف برت لقائل نيال أي كم به في الأخرى بنين طريقة با ولا تبس بيت مانام قال به كيو خيارا بوقت قاله إيه. قاله إلا دي قال به نك ها لو لغم يقول بكذا موي وقتي اوتنا مي موم لي لا تي mun nag ku koo xam ne li nga gëm mooy boole tariqa bi ak bi ak bi nee na kooku ma ngay perte ci beneen tariqa ba parce que du ci jëriñu wala jëriñu ci bii wala sax dana nekk ci lu wérul ba dem bés bañ ci xam ngay da ngay nekk li nga xam ne li wér rek axsib bi xaayil ci bay ci gën a jafe la ci kii foofu la dem mu ne kadaba nar na waftarata duut na alallahi waral yàlla ajal ci lu wér nag euh, maanaam koo xam ne ne nga rab googu ya dund mbuut rabal sidna Cheikh tuddewul noonu mun nga koo defee ne mun wax dëgg yàlla nar nga sos nga euh, te inni man Ibrahim boobu nekk ko alxaaj aqulu danaa wax ca kaw ne inna dal wird na ndaka wirdo wi bëjal doy na jarul ngay di ko boole benn jàppal maa nga bàyyi rek daf may sama nday ku soxlo won ñaari bot ci fu am boto ba sol sol ko sol ba tak xam nga bobé bot dal ko di dugg ku nek non nga war mel ak tariqa aha kad tara al ilahi jal al allahi ajal ni aqulu inna dal wirda bajal mbiram boole wirdo wi ak beneen wirdo am na tuuti waxtaan parce euh, toujours dañ ciy wax am na ñuy wax ci xam ak sellal am na ñuy ak bëgg xam ne ñuy wax contre rek bokk na ci jam-jam yooyee lu tax ñu tënk nit ñi ci téeméer walla juróom fukk wala fanweer lu tax lu tax ñu tënk te yàlla ne fazkurullah zikran kasiira ñu kay d'abord ki ñu wax loolu yow kooka lañ gën a nangu waxam ci yow mi parce que xam nañu fu mu jógee xam nañ fu mu jëm yow ma la dangaa dajeeg man fii rek di wax ñaareel ba wér du laaj bi nga wax mu ne man nit lépp bàyyi moo ne nit lépp lu mu bëgg a saxoo war naa xam nu mu toll war naa xam itam kañ parce que nit yi ko war du benn bu ci amee benn bu am importance na ko utal waxtu utal ko lim lim mu ne mu ne mu ne boo ne fanweeri astafurlah laa lay lay lay lay bëriwut mu ne bëriwut bëriwut ndax bëri mi ngi aju ci njëriñ li ndaxte euh, yonent bi ay salaatu salaam mi nga xam ne yow na ngay wax kii contre sunna lay wax mu ne te yonent bi moo ne jëf ju baax ju tuuti te sax moo gën te moo gënal yàlla muy ñaari valeur moo gën te moo gënal yàlla jëf ju bëri te sax boo koy traduire mooy boo doon def bis bu set nga def téeméeri salaatu ala nabi te dëkkalu ko yow kon sax na kon yonent nee na lan moo gën te moo gënal yàlla xam nga jàll nga pom bi déjà waaw kii nag def te junne def ëllëg fanweer gannaaw ëllëg dara yonent nee na jëf jëlee ku gën c'est te itam wax dëgg yàlla kii faju moom moom du weddi loolu naan garab gi ñaari fan tëb ko fukki fan kii parce que yow bëggoon ni roog tijaan yi saxoo ko ci biir do te itam pour pourquoi mënuñ koo bàyyi ci wax ji la bokk dañ koy wax lu tax ku jàppiru doo ko bàyyi ma ne de waaye nee na dafa aju ci ñu ne la lan nga doon ut su fekkee ne danga danga xam ne ñëw jaayanteeg nit ci jël wir du wax du xaalis bu mu lay jox du kër gu mu lay jox du pal gu lay jox xanaa dafa lay jox sikkar sooy jaamoo yàlla naafila si nee na loolu mooy ni sa topp yàlla yonent nee na encore une fois te mooy sunna ku ci nisërati topp yàlla na ko topp ku nisëroon mooy yàlla na firi nisër nga bu mu ko def parce que ñaari ak sel yoo xam ne bii libre nga ñàkk def sax a gën bii nag moom moom sañoo koo ñàkk a def nag kooku xas jàpp avant nga jàpp wérdo yi amoon nga liberté di wër ci fu la neex mais nag bi nga ko xasee jàpp nag yonent ne nag continuer wal yuufu nuzuurahum yàlla ko wax yuufu nañ mottali seeni nisër waaw ah lim dafa ànd ak kawlu bi ànd ak diini ji moo tax fu ne rek da nga koy gis nangami yoon nangami yoon yooyu am na ku ma bëggoon a opposé ne ma ne ma yonent bi aleyhi salaatu salaam romb na soxnaam Zeynab mu jóor ay xooxi tàndarma di sàbbal di kont mu dox soxlaam ba wàññeekuwaat ñëw ci kër fekk mi ngi toog fi toog jógu ne ko bi fi toogee ba tey mun naa laa wax ñaan ngoo xam ne moo ëpp loolu ma ne ko évidemment yonent la di yow da nga foog ne kon euh, sabal lu bari yaa ngi xeex kaas kurus te nasaguñ ko da nga foog ne loolu amul njëriñ ma ne ko des man sama interprétation mooy sàbbaal yooyu moo ko def taraqi ba mu am ñaan koo ko yonent jox ndax yonent moom taxirul kar dañ koo ko sant su fekkoon ne loolu Zeynab ba def euh, euh, waaw Zeynab bu def dafa dul noonu bu koy rombaleku naa de bàyyi lii ngay kon si kooku bokkul ci diine ji waaye nag daf ko bàyyi mu dox ba egg ci ñaanam gu ma ko ke yonent xam ne lu gën loolu amul werante kay ma gis waa sa bopp yooyu yëpp nag ay kii la yoo yu ñuy jëm tayal may jaru ko waaye daf ne linkaar yàgg na nee na tontu la itam yàgg na mu ne al inkaaru qadimun wa raddu qadimun boo doon monte nag ci jamono ci vingtième siècle moom au moins ca gànnaar ku ñuy wax ëtt yey ja mooy sëriñu Xadir ibnu Maaya Ba ñoom ñëpp ci gi giitu tëjugante lañ bokk jàng lañ góor lañ tubaarkalla mais adiya ji moo taalif téere contre tarixa bi Ibnu Bayaaba jël ko plagié ko yokku ca nag moom daal di jël affaire ba waaw tawalla kibra waaw mustahal xaari fil jaani suuf astafurlah parce que ñu ne nettali kéefër soxta ne kéefër fii raddi ñii ne zalaqaat yi ñii ne kufri cheikh Tijaani nee téere bi mooy téere bi nga xam ne neex a wut ay ay ay ay fruits ne dafay biral yu cheikh ne tuddee ko na mu ko tuddee bàyyi ne ma sëriñ bu ñuy wax Zeyn ibnu Ajmat ci tëjigant la bokk ni ñëw olof la olof la wala téere la séeréer taalubeem bu bugg polémique yooyu foog na tarixa ak tarixa dañu war a mbëkkante gis téere ba indi ko ne ko ndokk yàlla téere buy weddiloo yàlla tiijaan yi gën na nag donc mi ngi xaar sëriñ ko oh ah foog ñu doon neex dëgg la la koy wax mais daf ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal ba tiit nag mu ne ko tijaan yi seen njàpp lu tooy yi léeg seen julli yu sell yi léeg seen bëgg yàlla gi léeg seen kii buñ dee yëfal ñun lu ñu doon ñun xale ba tit mom mu rocc pilimam rek tali improviser ay bayti di retan ñiy wax loolu di deugereul tariikh bi te moom chazuli la loolu mën xam mu ne awa kufrun billahi an qala abdun muqinan la ilaha illa allah aw an istagfara al ilaha yurajji minhu gufrana ma janathu yadaahu bana in yakun za ya ayuha annaasu kufran fa alzamu ahmadoo mu ne ndax weddi yàlla gi ngeen di wax mooy jaamu yàlla bu wax fekk ma nga am yaqin ak certitude ne laa ilaha illallah xam nga ci si wala mu balu yàlla yaakaar ko lépp lu loxoo masal ci bàkkar yàlla baal ko ko wala mu julli ci yonent bi nga xam ne mooy lii mooy li mu ne su fekkee ne loolu mooy weddi yàlla yéen nit ñi may déglu jàpp leen ci dana baax ko ironise yàlla kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na mottali télé bi teg ci yeneen ak yeneen ak yeneen jëriñ ñu ci jëriñ ñu ci li mooy ñun ñëpp ñu ngi ànd jéem a pérenniser œuvre boo xam ne am na particularité mooy moo la bàyyi njëkk a composé dund ak moom ba xëy jógee fi mosu ko corrigé waat kon nag moom am na aptitude am na barke te itam mm, point de depart bu barke la nit ñi dañu bëgg a gaaw a dem ci sori mais ci yóbbaale ko daal baax yaakaar naa ne nag ci yàlla moom macha allah bu bu fekkee ne talaata yi ñëw fekk na tukkiwuma ñu continuer bu fekkee ma dem Maroc ndax dafa am mel dañ faa xaw a yàkkamti tuuti rek ñu ñaanalante rek ba ñu reprendre ko ci waxtu yàlla yi tax incha allah te au plus tard xam naa ne mooy gannaaw julli julli korité di gërëm yàlla di gërëm itam ñi nga xam ne ñoo am confiance euh, am volonté te maa ngi yaakaar ne dërs bu simple bi ñëw gannaaw jawaay rosaay bi nga xam ne moom kii maanaam dañ boole départ ak massa ba ci avec fin donc dañ mos a egg ci yeneen dërs yoo xam ne dana gën laaj concentration ma ñaan yàlla mu yóbbalee ñu volonté ak tawfiq luñ jàng yàlla nañ ko jàpp ñu jàppee nañ ko jëriñoo mun ko jox ñeneen am nañ privilège ñun jamono ji mooy communication yàlla def na ci tëjëliyaat yoo xam ne eh, xëy na léegi la gën a yomb te itam xëy na lay ñëw ko gën a gën a sophistiqué encore eh, lépp na doon ngir yàlla na doon ci yàlla na doon jóge ci yàlla na doon jëm ci yàlla بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ذي القدر صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب السخط والتعسير وتكون لنا بها أولين ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم المعاصي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت واكفنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يقضى تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا كثير الصفات يا حسنا يا رسول الكريم كريم يا حنين يا قدير الله نسألك اللهم بعظمة اسم ذاتك العلي أن تأخذ بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك وترضى